jëm ci enquête interne bu gendarmerie lépp nag coow li foofee la juddoo ndax moom Pape Alé Niang dafa wax ne ci biir enquête interne bopp yi bëri nay kilifa yoo xam ne ci réew mi tudd nañ leen ci dossier bi nga xam ne moo jëm ci mbiri Adji Sarr ak Ousmane Sonko journal bi nee na ki nga xam ne mooy journaliste Pape Alé Niang daf cee wane nag ne mbir mi ay complot yi neen la maanaam complot jëmale ko ci Ousmane Sonko mbir mi foofee la commencé maître Moussa Sarr wax ne lii nga xam ne moom la ñu toppee Pape loo xam ne tegiwul ci yoon ndax lu jëm ci message nga xam ne moom la ñuy wax ne Mbaye moo ko fësal mooy keroog ba nga xam ne war nañoo déglu Ousmane Sonko ba di ko tuddee Oscar Siara loolee nag Pape Alé Niang ci internet bi la ko gisee comme ni ko ñëpp gisee bu jëmee tamit ci lu soxal wàllum sapeur pompier message boobee tamit Pape Alé Niang ci internet bi comme ci réseaux sociaux yi maanaam fi ko ñëpp gisee la ko Pape Alé Niang gisee Assane Samb xëy jël xalima ma nee na nag Pape Alé Niang ginnaaw bi ñu ko tegee loxo bëri nag ñoo xam ne jug nañu addu sàkku ñu daal di koy bàyyi waaye nag bàyyi wuñu ko jël nañu ko dugal ca kaso ba Assane Samb ne na Macky Sall reculé wul ki nga xam ne mooy Seydi Gassama jiite Amnesty International section Sénégal wax na Ousmane Sonko wax na ma ne la gis nga au niveau ñoom tamit yëkkati nañu seen kàddu ngir ñu bàyyi Pape Alé Niang bu ñu sukkandikoo ci Assane Samb nee na presse sub Sénégal tamit taxawaay bi a amee taxawaay bi dafa la gis nga journaliste yi nga xam ne ñoo nekk moom lañ waroon a amee ngir ki nga xam ne mooy Pape Alé Niang aucune action de terrain amul lenn loo xam ne journaliste yi wan nañ ko ci terrain bi luy firndeel nit ñi dal maanaam taxaw nañ ngir jàppale Pape Alé Niang loolee dara amu ci bu ñu sukkandikoo ci xalim ak Assane Samba ba tey ci biir journal bi Assane Samba nee na am na ñenn ñoo xam ne ñoo ngi ci biir gouvernement bi ñoom daal dañoo jàpp ne jël nit dugal ci kaso bi loolee rek mooy solution ndax nag ñoom comprendre nañ leen ndax mosuñoo def kaso yéen kay gi di Les Échos fekk fa maître Moussa nee na Pape Alé Niang moom si boppam xamoon na dinañ ko jàpp ndax bureau Pape Alé Niang ñëw na sama bureau man maître Moussa saara mu xamal ma ne dañ koy jàpp préparé woon na sax ñi nga xam ne nag ñooy affamé ma yéen a kaay gi de Le Quotidien ba tey moo maître Moussa saara nee na état bu Sénégal ci boppam moo war a nag bàyyi di viole di jalgati li nga xam ne mooy liberté de presse te nag état bu Sénégal moo war a bàyyi di jël justice bi di ko instrumentaliser ngir nag dal ci kaw nit yéen a kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Mamadou Thior mi nga xam ne moo jiite kuréel gi di correct nag daat nay wax ne procureur wër yam rek ci jàpp Pape Alé Niang mën na lay gis nga procureur dafa war a nag xool document yi nga xam ne Pape Alé Niang fësal na ko la nekk ca biir document ya mën na la contenu bi loole la procureur war a xool dëgg la wala du dëgg te nag gouvernement bu Sénégal ñu fee nekk nag di làqatu ci ginnaaw xawma ay secret défense ay secret de l'enquête ngir nag bëgg a noppiloo ay journaliste bu dee nag ci biir gendarmerie bii nga xam ne ñun ñëpp dañu ko wekk bu dee nag dafa am ñoo xam ne ay comploteur nekk biir gendarmerie bëgg a yàq nag image gendarmerie loole nag ci boppam taskatu xabaar yi koo bàyyi mu jàll yéen kaay gi di Rewmi Quotidien nee na am na ay alliés président Macky Sall yoo xam ne ñoom nag dañoo bëgg ñu soppi tur wii nga xam ne mooy turu Benno Bokk Yaakaar daal di koy wutal weneen tur yéen kaay gi wal Walf Fadjri xëy ñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum njëg yi nga xam ne dafa yokk ba maara détaillé état bu Sénégal fan yi ñu génn nag ñoom nee nañu wàññi nañ xaw ma lan njëg yi waaye amul lenn dara wàññeeku wut si njëg yi mën na lay gis nga kuréel gi nga xamante ni moo ëmb ñi yëngatu ci lu jëm ci wàllum jaay ndawala ñoom nag nee na dara ko wàññi ndax amul lenn loo xam ne état bu Sénégal daat na leen koy jàppale yéen kaay gi di réew mi ko di jee nee na liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital Maam Abdou ba ca Tiwaawoon dañoo mer ba maara day taal dañoo nekk si jafe-jafe am na ñeenti fan yoo xam ne moom la ñu xàppati fas yéene koo dem ci ab gréwa yéen kaay gi de la ko di jee nee na centre de santé yi ak collectivité territoriale yi neme état civil yi mën na la gis nga léppay taxawa ndax na coalition ànd gësama am bu ñoo xam ne ñoo ngi ci wàllu wér gi yaram gi ak nag intersyndical liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci collectivité territoriale yi ñoo joxonte loxo dem ci ab gréwub ñeenti fana waaye nag journal nee na liggéeykat yi nga xam ne tamit ñoo nekk ci secteur primaire bi ñoom ñetti fan lañu dem ci ab gréew mooy liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci ministère bi ñu dénk wàllum élevage ak liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci ministère bi ñu dénk wàllum pêche ak liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci ministère bi ñu dénk wàllum agriculture yéen a kaay gi délibération nee na lu jëm ci marché 45 milliards yi nga xam ne moom la ñuy wax ne si la ñu jënd ay armes ci ministère bi ñu dénk wàllum environnement mën na la gis nga gis nga ba léegi pënd bi wuréegu la ndax nag mbir mu doy waar doy waar moo ci am am bi nee na ma ne la gis nga société bi nga xam ne moom la ñu jox marché bi ndekee société bi 16 novembre 2021 lañ ko créé ci Ndakaaru mu gagné marché bi 30 décembre 2021 ma ne la novembre lañ ko créé mu gagné marché bi weer wi su topp di décembre ma ne la 16 novembre ci Ndakaaru Njaay jël Jóob gii la ñu créé société bi gagné marché 45 milliards yi 16 novembre 2021 ñu ne déet waay 30 décembre 2021 ñu jox ko marché bi adresse sociale fii si Ndakaaru Njaay la mer douze fan résidence société bi nag ba muy gagné nag li nga xam ne mooy marché quarante cinq milliards bi mën na la capitalu société bi trente millions rek la amul kenn koo xam ne nag gis nañ ko fa mu fay liggéeyee maanaam ab employé ab numéro téléphone fixe sax ma na la entreprise bi nag amu ko première marché am ci Sénégal quarante cinq milliards la loole nag doy na waar génn xëy na doy waar koo xam ne maara di tale waaye nag li gën a doy waar ci mbir mi ki nga xam ne nag moo signé li nga xam ne mooy contrat bi kookee di David Benzagen mi nga xam ne moom nekkoon na fi ay ay jamono employé kii nga xam ne mooy Gabi Petres mii nga xam ne ak njabootam bërki dem moo njaaye daggal nañ leen suuf su nay wàng ci biir ndakaaru njaay jël joppa waaye tamit société bi mën na lay gis nga numéro téléphone ba nga xam ne moo sa nekk boo ko dugalee ci logiciel bii nga xam ne mooy Trico la Ababacar la lay génneel mën na la comme Ababacar Ima petit boubé yéen kaay gi nee na mën na la gis nga mbir mi nag doy na waar génne xeetu doy waar goo xam ne maara détaillé yéen kaay gi du sunu